pour war a mën a bénéficier wu ñu génn leen si jël ay policiers yu bokk benn bokk yaakaar teg fa kooku li si benn bokk yaakaar la loolu moo tax ma defoon li ma def te bu doon suba ma defaat ko waaw léegi ñu dem ci sa assemblée boobu noonu yow sa beneen naataango député di opposant di Guy Marius Sagna am lu mu yëkki ci kàddu bëgg leeral ci keesu assemblée ni ñu koy yore yow nga attaqué ko xam nga du attaque xam nga man damaa wax dëgg te yàlla tax parce que man ba may nekk député xaw ma Guy Marius Sagna wi ñu fal dafa am lu ñu yóbbu assemblée soxlaay Touba soxlaay population bi laay wax keesu ensemble ñaar fukki milliards la ñu wote ko mu war a nekk fonctionnement ak investissement fonctionnement bi c'est le salaire du député bokk kooku ngay wax dafa nekk vice président du commission ku nekk vice président du commission da nga am maanaam juróom fukki junni yoo xamante ne en tant vice président commission la da am ñeent fukki junni yoo xamante ne indemnité de logement la muy téeméer junni da danga am li nga xamante ne mooy un million trois cent mooy sa salaire da nga amaan maanaam neuf cent mille francs yoo xamante ni moom moom la ñuy wax maan indemnité de voiture de transport boo leen boole mu nekk trois millions cent cinquante mille da koy am par weer waaw léegi lu mel noonu boo ko nit amee ci keesu ensemble lay jógee man mii ma di ko am keneen di ko am keneen di ko am mais est loolu war naa tax nag nga taxaw war a wax askan wi dëgg nga mere nit ki wala en longue moom nga bëgg a yàq deru assemblée ngir sa kam mais moom lëj man boo fa nekkee déglu ma déglu man damay wax rek xam nga il faut ñu wax man bu fekkente wax nga loolu en tant que kaddu bu fekkente tey nekk na assemblée ñun la ñu war mooy dañoo war a wax li nga xamante ni mooy njariñu askan waaye keesu ensemble dañu koo lekk ngir ko xëy na contrôle bi nga xam jàpp nga ni yow war nga ko mën a contrôle ensemble contrôle ko ngir loolu ñun li ñu mën a wax ñun li ñu mën a wax te war ñu mooy keesu ensemble député yi lii lañ ci am kenn ku ne na ko wax. waa léegi vingt ah. milliards yi lim ci soxla mooy lu leer quand même. loolu day en tant que député na ci droit. xam nga leer ñun ñii di wax ak yow bëgg na assemblée qu'est-ce mais bëgg na assemblée naa la député bu nekk da siy gagné te war koo bénéfice nga xam ne tey 3 millions 100 yooyu noonu mën na diitoo ne kemb nga war ko jël pour séddale ko maanaam ñi nga xam ñoo ñooy baykat yi. pourquoi defuñu ko responsabilité individuelle yow bu fekkee bëgg nga jël sa xaalis séddale ko baykat wala nga jox ko les étudiants kooku yow la mhm. mais est-ce que député amul sañ-sañ xool budget bi xool fonctionnement bi xool fan la koppar dugg mu ko mais xam nga fekkoon tamit dañ ko bëri na loo def ay questions orales. questions xam nga léegi loolu xam nga lan moo ko mën a indi. mooy réunion de bureau bu amee. nga taxaw nga demande li nga xam mooy réunion du bureau xaalisu assemblée bii nga xamante ne dama bokk ci commission président commission moo am sañ-sañu woote ko parce que ensemble sax amul sañ-sañu woote ko parce président assemblée bu sampee commission yi commission yi ñooy liggéey ci loolu. moom am na président na dem ci président ni ko dama bëgg ñu def réunion pour waxtaan ci lii bu lànkee mu bind fa mu war a bind mais doo taxaw ne assemblée dañoo lekk xaalis bi leen liberté. non am na ngeen di wax. moo tax moo tax moo tax ku wax lu tax ku wax lu la man dinaa wax loo xam ne moom laa war a wax pour dëgg askan bi bu mën a xam. Euh, Fatou du tab bi ci euh, euh, dialogue bi parce que dialogue boobu moom da cee dem au moment où yeneen ci ñi nga xam ne bokk nañu ci kujje gi dañu ne Euh, duñ ca dem ak condition yu ñu teg alors déjà ci ci ci forme bi yow naka nga jàngatee dialogue bu nu wootee ak euh, Soros waaw xam nga ñun dañoo am parti politique ni la mouvement nekkal fi askan déposé na maanaam ba am récépissé war a dem si élection yi bu neexee yàlla soppi ak doomu daara une grande coalition boo xamante ni 35 organisations ah ak doomu daara la grande coalition soppi ak doomu daara parce que 1960 ba léegi ñuy jox jàngkat tubaab yi ay réew mi réew mi sensé il faut ñu indi lu bees pour ko jox doomu daara yi ñun bi ñu xamante ni lancé nañ dialogue bi dañoo waxtaan ak suñu waa parti waxtaan ak suñu coalition parce que nag lu may def lu nekk comme que président Ablaye Wade mooy suñu waajur te dafa am loo xam ne daf ma ko defara muy trànga ci jamono yi ma waa yeewu askan wi génne. ne doo bokk ni doo bokk. ci seen i affaire tappale yooyu. waa PDS jël ma jàppale ma ma bokk ci liste bi gagné leen Touba kooku lu may def damay soldaate ak moom. bi ma leen waxtaanee la man waxtaan naa ak sama waa parti damay dem si dialogue bi bu ma invité. ma jot sama carte invitation. ma waxtaan ak waa parti bi comité directeur bi ñëw ñu jox ñu li nga xamante ne mooy suñuy point yi nga xamal war yóbbu. ñu ne bu ñu demee nañu waxtaanee ci lii. bu la joxee kàddu nga wax ko bu la joxul kàddu nga jël ko nga déposé ko la nga xamante mooy sa mémoire. Mhm. mémoire jox ko bi ñu demee bi ñu joxul kàddu ñu ne juróom lañ jox opposition bi kàddu ma xam ne juróom yooyu comme bokkuñu si ma jël ko jox ko président Macky Sall jox ko ministre de l'intérieur. ginnaaw bi nu ma yónnee sama kàddu ndax bu nu ma yónnee carrémentation du ma dem. bi nga xamante ni def naa loolu point yi mu si jot dinaa la ko mal mooy article moo nekk si. code électoral bi. muy ku déggul tubaab. ne déedéet article 57 bi. Ah, dama bëgg ñu sensé ko article neuf et trente dama bëgg ñu sensé ko. daal ni Macky Sall article moo la tënk yow mënoo am troisième mandat. mi ngi ci samay proposition daal ni li nga xamante ne mooy article bi nga xam moo ne si ni ku déggul tubaab mënoo nekk candidat loolu institut lañu ko dindi. xam nga kenn ku nekk. tey am na loolu tënk mooy ñii pour ñu nekk candidat il faut que maanaam ñu dindi li nga xam moo ne si règlement intérieur bi kii pour mu bañ a nekk candidat euh, article 27 moo ko tënk man article moo ma soxal en doomu daara aw ma sañ-sañu dem waxtaana réew waxtaan affaire jafe-jafe pétrole bi waxtaana situation réew mi ak dund bi loolu moo waral ñu dem si dialogue bi ñu demee tamit bi ñu noppee dañoo dénk Moustapha Niass mu jiite ko bi ñu noppee Moustapha Niass woo ma xamal ni man li nga xam mooy dialogue politique bi dana tàmbali bi sàngam ki nga xamante ne maanaam moo nekk maanaam suñu représentant muy docteur Ali Anne mu jiite cadre yi. Mm. fi ñu toll may waxee moo ñu toog si dialogue bi démb lañ def réunion suba la ñuy defaat benn réunion di continuer mm. bu ñu fa noppi ñu def benn synthèse boo xamante ni mm. dañ ko indiwaat ci parti bi avant ñoom ñu dem pour waxtaan ak président pour développé nga fa ñu ci cappaandaw la muy conclusion yi daan ko tenir en compte. waaw ñun dañuy def proposition ñun li ñu gënal. mooy ñu waxtaan ba déggoo parce que parrainage bi war nañ ko dindi war ñu wàññi ko modification code électoral war nañ ko def modification code constitution bi nga xamante ne am na ñoo xam ne tënk na leen war nañ ko def mais loolu lépp nañ si waxtaan man bu ñu waxtaanee ba dégg lu ñu tënk rek. baax na man li ma bëgg daal ñu jëm si élection yoo xam ne dafay am dal. ñu war a bokk bokk ñu a bokk te a taal réew mi. par rapport à l' assemblée nationale. dafa am 500 millions yoo xam ne dañ ko jagleloon ñi nga xam ne dañuy faatu bitim réew. ministre bi ne budget boobu jeex na yéen député yi ngeen toog di ko ci seetaan. waaw xam nga du ensemble national boo xam ne moom la ko jagleel. bis bi dafa nekk ci bis ministère des affaires la defoon xaalis mooy aide secours moom la ko tuddee. Mm-hmm. léegi 500 millions yi. dafay def néew boo xam ne dafa waatu bitim réew day dem ci consulat bi ne foofu wala ambassadeur bi mu bind ñu jàpp leen mais dafa wax ni. ci at boo xam ne xaajagul dafa wax ni. député yi ak ñi xam ne dañoo am maanaam alal wala ñu am dool bu seen mbokk faatoo au ñoom ñu mën wax ñu indi leen ci. loolu la léegi nan xool ba xam 500 millions yi ñaata néew la indi. waaw kay laa lay laaj léegi nag la kaa comme moom wax na ko. Hmm. danañ ko expliqué ñaata néew la 500 millions yooyu indi ak néew yooyu fan ak fan lañ jógee. waaye lu si mën rek bakkan moo gën a for 500 millions. très bien merci beaucoup merci beaucoup euh, Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké ñu fàttali ni yow yaay président maa nekkal fi askan wi. am député à l'Assemblée nationale. ñu ngi lay gërëm candidat à l'élection présidentielle soppi jot na ak doomu daara ak coalition jot na ak doomu daara. mi nga kon doomu daara yëpp la ci woo <laughs> Fatou merci. moom du jàll par merci beaucoup merci beaucoup Ndeye Fatou mbokk yi mu nekkoon sen émission seen show ëllëg beneen invité wala yeneen invité ak yeneen i actualité mbokk yi jaa ngeen jëf.